wax gis nga ne nawet baa ngi nit benn taw Touba gépp fees ana lan moo ko waral nit ñëbal ay saakoog mbalit ak yëpp def ko ci caniveau yi caniveau ay ki siwoog ay lu ne canalisation bi dara doxut ñenn ñëw wëlbati ko branché ci seen i douche te ñi ko fi def nag mooy ñi waroon a tere dëkk bi tey moom dëkk bi muy kilifa yi man li may wax dama koy dénoncé ba mu mat kilifa yi ñoo defut seenu yoon parce que ñoom ñoo def loo xam ne ni gis nañ leen parce que gis war nañ ma vidéo woo xam ne maa ngi gis kilifa gu mag ci dëkk bi mu branché ay ay douche la dugal ko ci réseau bi loolu keneen koo gis ndax ñeme ngaa wax kee bàyyi kii loolu la fekkee ne nag nit ñi dañuy liggéey ñii di gas ñii di suul rien yeneen marche dara du dox ñi war a dimbali dëkk bi jàppale ci mu ñi ko moom nañ ci njëkkee teg ci kanam dig tali bi yi mën a am fu ñu aw ci yoon waaye bu ñu defee ñoom ñoo nekkut ci yoon benn tali bi du mën a jaar ci yoon